maa ngi jógee département Koungheul. waaw Touba jaay. kar ñu ngi nii kenn jëndul kar kenn jëndul lépp lépp lépp lépp lépp wax ne dafa yomba te kar yi paas bi dafay dafa xoppa kar def nga fay mm, juróom benn téeméer juróom ñetti téeméer ah bi saaku boo lamba saaku boo lamba ñu ne la kilo bi juróom benn fukki jun eh, doo mën a jënd konti te ñu ne ñëg eh, mi day da naa yomba lool man ta nekk ñun sonn nañ nguur gi nañ ñu dimbale sàmmkat yi dee nañ kar yi demut mu demut paas bi ak konti gi moo seer client kenn ñëwut ku ñëw mu ngi fay trente cinq mille cinquante mille loolu loolu la ñuy loolu la ñuy fay kar bu yomba yomba yomba buñ luñ fay bu seer et soixante mille dañoo jarut ku ñëw rek dem dañoo jaru dañoo sonna jafe-jafe compte rek lañ xam. Assane fay laa du maa ngi jóge Daaru Minam Saloum dëkk sëñ Mountakha tax a de xar yi moom wax di yàlla taxu koo bëri lool te xanaa réew mi a dëgër rek waaw xar yi moom wax di xam ne ni mu demee la corona bi naan xaw ma corona la xaw lu gën xamut daal loolu daal moo tax xam naa ne réew mi kenn mënut a dëkk jaay sim xar bokk na ci li nga xamante ni moo yàq liggéey bi aussi xaalis amul ci réew mi itam ndaw ñi bëgg nañoo liggéey waaye mënuñoo liggéey loolu bokk na ci li nga xamante ne nii moo moo moo moo moo gàllankoor yëf yi waaw ñun nag buñ fas buñ buñ sañoon nag dëgg yàlla am ngeen euh, réew mi président jàpp ci bu baax a baax liggéey bi nga xamante ni moom moom mooy liggéeyu réew mi muy ndaw ñi ndax lii nga xam ne moom lañ yor di ko sàmm dañ koy def suñu suut bëgg ci dara waaye gis nga ko mënuñ ci am dara booba léegi te bu jéenee jéem a dugg ci gaal yi du sotti kon nag yéen ñi nga xamante yéen a fi nekk ngeen jàpp ci bu baax a baax président gëstu ndaw ñi pour ñu liggéey loolu danga daal moo gàllankoor yi fi Touba moom xar amagu fi moom li fi jotal nekk dugg na Gàmbi te Gàmbi gis nga ni mu tuutee waaye moo ñu ëpp bëre lan moo waral loolu waaw ah, embouche moom doxul ndax da ngay yar sam xar def ci lu ne ripaas bi seer na xont bi euh, seer na ndox mi ngi koy bëgg seer waaye fi mu toll nii boo ko jaayee doo am dara gaa yu bëri dañuy dañoo bàyyi loolu la loolu tax fi mu toll nii kenn mënut a yar xar xar mii ngay gis ni mu toll nii euh, ñu ngi ko jënd nii 140 def ci ay fere xam nga boo jëndee 140 indi ko ba Touba def say fere ñun boo boo ko jaayut 170 amoo dara waaw 170 boo ko jaayut amoo dara fi mu toll nii 140 yi ñu ci defoon moom moom moom lañ lay delloo. fii ñu nekk nii moom am na jafe-jafe ndax saa yu ñu xëyee ñun ñooy baleel suñ bopp defal lépp suñ bopp ndox sax muñ naan dafay jafe càcc gi kay moom boo xefee rek ñu jël sa yur. waaw loolu moom law na ba Touba ñun ñëpp dañoo yaakaar Touba moom sécurité bi doy na ba ñu ñëpp ñëw fi waaye fi mu toll nii ñoo ngi sonn lool nag. fi mu toll nii duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg boole ko yooyu nag duñu rey moom bu ñu amoon pompe yoo xam dañuy pompe yooyu wax dëgg yàlla dañuy gën a mën a wattu suñ jur gi xar yi ah xar moom wax dëgg manis na ne mi ngi dox manis na doxul waaye par rapport ak heure bii daaw heure bi daaw daal xam naa ci la gën a dox instant yi nii daaw nag loolu nag li ko waral mooy liñ gis ni mu waral daaw dañoo dem ba suba la tabaski xar yi yomb daal mu ci bari moo tax instant bi jënd ko gis-gis boobu daal lañ gis na moo tax mais nag moom mi ngi jaar moom exact mi ngi jaar moom waaw bëreegul moom waaw bëreegul xarit moom bëreegul ci tubaab a ah, jafe-jafe moom exact ñun moom mun ñu koo xam ndax ñun nag moom wax dëgg xari yi ñu jaay xar yar la daal waaw mais nag Touba moom bëreegu fi liñ fi gis nii moom bu dee moo fi nekk xar dana fi manqué bu xar ñëwaatul fii ak suba ginnaaw suba moom dana manqué non xar yi moom cheragul wax dëgg cheragul moom cher moom dafa xar yi moom prix yëpp ci am exactement moom prix yëpp ñoo ci am ndax xaru yar moom yemul fenn mee na xar nag dafa am par ay différence xar yar yi moom wax dëgg ñoo gën a cher moom waaw wax dëgg xar yemul fenn am na cent cent mille cent cinquante mille deux cent mille trois cent mille prix yëpp am na ci waaw mais nag mi ngi aju ci dayoo bi xar mi am daal waaw xar yi moom prix yëpp ci am non non mënuñoo yem prix mën ñoo tolloo même dayoo mais prix yi mënuñoo yem ndax xar bi nga yeew di ko jox mboq ak ripaas ak basi mënut a yem xar mi nga xam ne ñax lay lekk wala ngooñ. di xar de la waaye seeruñu moom maa ngi jaay 150 maa ngi jaay 250 maa ngi jaay 100000. xar yi danoo doon xariyar ñoo doon xar waaw. wax dëggam yàlla macha allah maa ngi jaay ndànk-ndànk maa ngi jaay ndànk-ndànk client yaa ngi commencé di ñëw ndànk-ndànk waaw. maa ngi jaay ndànk-ndànk daal par benn par benn rek am naa yaakaar ne xar yi moom danañ doy ndax maa ngi gis gaa yaa ngi commencé di génn ñu ngi woote naan ñu ngi ñëw ma ne leen waaw waaye nag kiliyaan client amagul moom client moom amagul xari coogal yi moom amaguñu client.